ñaari nit ak juróom benn ñoo ko woteel si ñeenti fukki nit ak juróom benn si deuxième tour bi moom madame Dieynaba Badem mu nekkoon troisième adjointe au maire de la commune moom moo daal di utu ndem si yàlla par l'Assemblée mu nekk mbégte si moom te nag muy tàllal loxo ndaw ñi. tey xol bi dafa fees parce que ki ma ñëw ki ma remplacé nii dañ doon woowante jumeau ak jumelle kon tey jumelle bu remplacé jumeau maa ngi leen di wax ñëw leen ma tàllal leen sama loxo commune bi yëpp xale mag ak ndaw ñaanal leen ma ngeen ñëw ñu liggéey jërëjëf. keneen ki nga xamante ne moo ngi doon xëccoo ak moom bile mairie di première adjointe bi moom nag ginnaaw bi mu ñàkkee moo ngi félicité ki di gagnante bi. mais yàlla subhanahu wa taala mooy tànn moom mooy joxe nguur. te ku ko neex la koy la koy jox ñu ngi ñaanal yàlla Dieynaba Ba mii yàlla sunu borom teg ko ci loxoom mu jig ko mu muurloo ko mu doxal euh, mission Pala Samb te incha allah dinañu gis ci ginnaaw parce que ñun Pala rek moom la ñu moom moo ñu ñor te moom rek la ñuy topp. bile élection ñoo ngi koy amal ci teewaayu sous-préfet bu Dakar Plateau jibi Diallo di ñëwaat ci taxawaayam ci bile scrutin. li am solo nañu xam ne Pala dem na yàlla ko yàlla yërëm ñun ñi xam te ñoo taxaw nag tey. ñun ñoo fi nekk euh, de doon organiser élection yi tey. donc li euh, ma li ma li ma li ma waroon def mooy rappeler dispositif réglementaire bi ba nga xamante ne mooy code général bi seen article 137 ak 138 loolu moo tax ñu def élection élection yi jàll. jigéen daa di utu góor si bile mairie ndax nekkul li nga xamante ne day violer loi bu jëm si mbirum parité ginnaaw bi ñu ko si laajee moom su préfet bu Dakar Plateau Djibi jàlloo mu ngi xam ne ni que loolee chef administratif bi moom rek moo si am kàddu gu mujj gi.